carrière ma ci loolu je le répète Amoul ay je n'étais pas informé il était au cœur du dialogue il était au cœur de toute la démarche la preuve am na kilifa bu fi taxaw ne moom président palais Khede, ak ben leader wu Yewi askan wi leader wu Yewi askan wi ba tey waxu lu ak ndaw président Makissal, Jokon jot moom nag am na droit dalal ndaw bu kay Macky Sall di yónni wante man mii awma droit di dalal ñetti yoon suma kër ay ndaw ñu ñëw di jéem a dox jàmm